bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah diggante Cheikh Mbacke Sakho ak wahabiye yi salafiye yi caay ji tàkk la tekkee ci gën xam nga ñoom dañ doon weddi tasawuf <laughs> ak mu tasawuf weddi tasawuf ak mu tasawufu nay woote ak weddi Cheikh Mbacke moom ñoo weddi xadis dàq xadis yëpp ba noppi nag ñii dañoo wax naa bu leen gën woo ay wahabiye ay salafiye lañ moom nee nañ ko wax muslim rek boo kenn wax xuraan yi bokkul ci xuraan yu ne gaa yi jël ay audio yónnee seen i kilifa yi nga xam si ñoom ñoom lañ doyloo ci xam-xam nii leen moom nee na alxuraan doy na sëkk am firi jëru kenn di ko firi xadis mënut a firi alxuraan ndax alxuraan a firi boppam léegi nag Oustaz Omar Sall moom daal di jug ni nee leen ko kon fan la alxuraan waxee ni lekk med dafa araam te jën meddi la kon lu tax ñu koy lekk. kan fan la alxuraan wax ñëwee di daganal medd euh, mu xam nga moom dafa neex ndax moom Omar Sall mu ne ko uxila lakum saydul baxri wa taamu mataan lakum wali sayaara Cheikh Mbacke tontu ko lool <laughs> oustaz ginnaatul ban ko waxee Ahmad Lo Ahmad Lo nee nee ko kon waxtu julli fan la ko alxuraan tudd mu tontu ko ni waaqimi salaata tarafay layli wa zulfan min an-nahari innal hasanati yusibna sayyi'at zalika zikra li zakirin ni moom ak eh, aqimi salaati li duluki samsi ila ghasaqi layli wa qur'anil fajri maanaam daal mel ne foofu ni mu ko tontoo moom ni ko fire nga xam ne moom alxuraan moom ni mu koy firee sax Cheikh Mbacké Sakho mooy moom ni mu ko déggee rek de mooy <laughs> taawilu boppam moom ni mu ko déggee mooy kon moom nii la waaye gañe na lu bari ci wahabi yi ba ñu bari ci ñoom seen boy yi wuy ji nañ ko ba léegi ñaar rakkaa la ñuy julli nee nañ doot ñu def ñet ñetti raka duñ def ñent moy way ni ñu jullee suba dañuy ñuy raka yëpp lool lañ doon téré bo gisé li tax mag ñi waxon ni tasawuf dañuy téré top sam xel di tawel di tawel ndax fi dool toll Cheikh Mbacke bala yag na gis kenen ku ko attaqué wax ko ni ko ay alcorane yi wérul yi mo wér sar yi wérul sar yi ya wér loolu la mag ñi doon téré xam-xam fay and ak teggin Cheikh Mbacke dafa melni koy réclamer wala koy proclamer ni mom mu jaddit la ndax loolu la doon jéem a def ci biir yoonu murit waaye eh, murit yi kenn jëmu leen naa ne dañ koo daal di jëflante ak moom dañ ko war a jëflante mu bàyyi fi wàllu xilaafa gi mu doon jéem a dugg ak yooyu waaye tey jii nag ñëw na ci biir lislaam moom delluwaat attaqué xadis attaqué sunna ñu bëri ci booy sunna yi ni laay ndeke suñ gars yi xamuñu dara bi leen Cheikh Mbacke tontoo ñoom ñëpp dañ ñu miig ndeke ñu ñun alxuraan ndekete mooy dëgg ndekete xadis ndekete nangam nangam nga xam ne foofu la gi toll fi mu ne man damaa yéemu sax waaw kay asalaamaaleykum euh, vidéo boobu ngeen gis noonu yàlla dafa dogal dañ ma ko yónnee am benn jëmm ju ci wax jëmm ji nag yàlla dogal na man xaw ma ko te xam naa ne moom ma gën a umpale nag Euh, te it seetlu naa dafa mel ni day bëgg a ne ñun li nga xam ne moom la ñuy wax ndax mu ngi bind Cheikh Mbacke Sakho ak wahabit yi Cheikh Mbacke Sakho moom waxut ak ay waxaabit Cheikh Mbacke Sakho ci islam lay wax islam gi nag bi ma ciy wax dafa am ñoo xam ne dañ fee nekk bokk ci ahlu sunna wal jamaa loolu du wahabit yi rek te sax du may woowee ñoom wahabit ndax mu ngi wax ne man maay wax ne ñooñu duñu ay wahabit ñooñu ay salafi lañ te loolu tamit ba tey du sama wax ñoom. li ñuy li ñuy wax li ñuy tuddee seen bopp mooy ay salafi comme yéen ni ngeen tuddee seen bopp ay suufi ñoom tuddeewuñ seen bopp ay wahabit te yàlla dafa wax ci alquran wala tanabazu bil alxaab su fekkee ne nit ki ku gëm yàlla la comme nag ñun yàlla dogal na ay nit lu ñu woowul seen bopp mënuñ leen koo woowee ñun nag ci islaam la ñuy wax mooy li nga xam ne moom la yàlla jàngaleel boppam doon ko jottali loo yonent bi te mu nekk loo xam ne it yonent yu jiitu yi ci lañ nekkoon te yonent ya jiitu ba ci yonent bi ñoom ay muslim lañu woon yonent bi yàlla lim ko diggaloon mu doon ko mooy ab muslim ñun ñi it mënuñoo tuddoo beneen tur su fekkee ne gëm nañ yàlla lu dul mënuñoo tuddoo beneen tur bu dul muslim su fekkee ne gëm nañ yàlla ndax ku dem ci surat 22 muy suratu xaj ji aaya 78 aaya ba ca mujj yàlla moo wax ne wa jaahidu fi llahi xaqa jihaadihi huwa jtabaakum wa ma jaala alaykum fi ddiini min xarajin ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين nga xamne yàlla ci bopam mom moñu tuddé ay muslim bokku tak na li gars di wax naan ibrahim la dedet yàlla mo na huwa tabakum te mom moy huwa samakum batay mom mo waxat waxaat yàlla mom moñu tanon tànnoon te moom it moom moo ay muslim li muy wax nak ci Cheikh mbake Sakho li jitu moy Cheikh mbake Sakho yàlla dafa dogal may ngi dégg mu ne da doon wote li wax mu jaddit te loolu damay wax ne wax deug yàlla Euh, maanaam ñi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne ñoom noo koy wax ñëpp kenn du la indil benn audio wala benn vidéo boo xam ne Cheikh mbaake moom dafa toog di wax ne man maay mujaddid loolu yàlla dogal na amul ci benn waxam te loolu tamit lu kenn ku ci mën a vérifier la te mu ngi ne loolu da ko doon wootee ci biir yoonu murit après murit di jëflante ak moom loolu tamit c'est archive ah loolu mu wax tamit dara wéru ci wax dëgg yàlla ndax Cheikh Mbacké Sakho mu ngi jug ci tarixa en 2015 boobu commencé gu ma sax di def ay vidéo te man maa ngi commencé def vidéo décembre 2015 te man fekk na ne lu jiitu loolu wax naa ne génn naa ci tarixa ndax loolu ñuy wax tarixa ci laa judd ci laa yaru samay maam ci lañ newoon samay bàyyi ci lañ newoon loolu lañ ma jàngaloon loolu laa doon jàngale man mii sama bopp ginnaaw gi suñ borom xiital ma ci alquran ma koy bàyyi xel di ko seetantal dem ba gis ne suñ borom dafa tere lépp loo xam ne ab xaaj la ci diini ku dem ci sourate rum muy sourate 30 ay 31 32 yàlla di wax ci ñaari ay yu toftalo ne muniibiina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu min almushrikin min allazina farraxu diinahum wa kaanu shiyaan kullu hizbin bima ladayhim farixuun nga xamne lolou nga xamne mom la yàlla jàngale mi tuub len delu ci yàlla tay baye xel yàlla tay taxawal julli te bu len bok ci bokale kat bi mi wax bokkaalekat yi moy les suñ borom wax na moy ñi nga xam ne dañoo xaj seen diina def ko ay xaj xaj bu ci ne di ndamo lamu yor ñaari ay yoyu ñoma ye ci lépp lo xamne ab xaj la ci diine comme yàlla dafa wax ne wa tasimu bi hablillah jamian wa la tafarraqu ngoy len ci bu muk yàlla gi te bu len takhaliko te nit ñi takhaliko ba pare bëgg wax na ay way gëm lañ man nak bima gisee ñaari ay yoyu ci la dañ ci lépp loo xam ne ab xaaj la ba ci tarixa ba nga xamante daal ne woon taaliba ya ma amoon ci tarixa boobu ma woo leen wax leen ko wan leen preuve bi ne leen nag man bis ni ki tey jug naa ca la ma ne woon léegi ab muslim laa ci islaam képp lay nekk kon nag nekkul na man maa di wax ne man ab muslim laa diine islaam ku ci nekk muslim képp nga mën a tuddoo su fekkee ne yow li yàlla jàngale doy na la ñu nag ci loolu rek la ñu nekk ñi ñuy tuddee salafi yuuna yi bi ñuy wax nag di dellu ci alxuraan ndax ndax ndax islaam alxuraan rek moo koy jàngale xam nga kii ñëw nii toog di wax mu mel ni day wax mel nii moom ku xam la mbiru diine nangam maanaam moom njàngaleem ahlu sunna wal jamaa ci la nekk moo tax muy wax ne dafa dajji xadis dajji sunna ñun amul lu ñuy dajji ci diine lii yàlla wax képp la ñuy wax xadis yàlla dafa am ay wax yu mu wax yàlla nee na moo wàccee gën jaarafeti xadis ba pare di wax na ana ku ko gën a dëggu ci xadiis ba pare mu laaj ñi gëm na leen ana ba xadis ak mu laaj leen ana ban xadis ngeen gëm ginnaaw yàlla ak ay kéemaanam yàlla moo wax ne allahu nazzala ahsana alxadis yi ci surat 39 aya 23 mi suratu zumar soo leen demee tamit ci suratu nisaa yi aya 87 mi surat maa mi surat 4 aya 87 ci mujjug aaya ba yàlla moo fa laaj wa man asdaqu min allahi xadisan ana ku gën a dëggu yàlla ci xadis yàlla tamit su ngeen demee ba tey ci suratu jaasiya mi suurat maanaam ñuy surat 45 aya 6 bu wax ne tilka ayatullahi natluha alayka bilxaqi fa bi ay xadisin baadallahi wa ayatihi yuminuun lii de ay aaya yàlla yoo xam ne dañu koy tari ci yow ci dëgg yàlla teg ci ab laaj ana ban xadis ngeen ni gëm ginnaaw yàlla ak ay kéemaanam comme nag man damaa gëm yàlla man yàlla li ma gëmloo di ay xadisam nga xam ne mooy gën jaa rafete xadis moom mu wàccee ko muy ab téeréem man loolu rek laa suñu borom loolu rek la ma gëm loolu rek laa gëm léegi nag yéen ñi nga xam ne nag xamul leen ne yenent bi ginnaaw bi mu fi bàyyikoo yéen ni ngeen gëm ginnaaw bi lislaam matee ba yenent bi bàyyikoo fi ci la sosu yéen nag yeneen ñëw jàpp ne yéen li ngeen jàpp diine la ba tax ba sax mu naan xam nga soo waxee su ba tax sax muy wax tasawuf te xamul ne tasawuf mu ngi juddoo ci biir ahlu sunna wal jamaa ci biir tasawuf googu seen tariixa ñoom ci la juddoo kon nit koo xam ne xamul na sax moom la mu topp ci ginnaaw bi fi yonent bi bàyyeekoo ci la sosu nekkoon loo xam ne day wujje li ñuy tuddee nekkoon loo xam ne day wujjee ak li ñuy wax ahlu chia nit ku umpale loolu umpale nit ki umpale loolu ba noppi ñëw nag ci koo xam ne ci islaam lay wax mu ñëw di ci wax yu kenn xamul ak li ñuy wax ci mbiru xilaafa xilaafa moom damay wax ne xilaafa ga amoon ci ginnaaw yonent bi ak xilaafa yi fi ne c'est la même chose yëpp organisation la islaam xilaafa googu amu ca te loolu mu nekk lu leer loolu wax nañ ci ci vidéo yi depuis bu yàgg waaw ah, kon maanaam ñun lu ñu doon wax tamit ci tarixa yi rawatina moom tarixa bi nga xam ne mel na ni ca la bokk lañ ca doon wax vidéo bi mu ngi ci internet yi maa mu ngi ci internet bi mu ngi ci mu ngi ba tey suñu chaîne boobu tudd Nihma TV lañ doon wax ku ca dem danga ko gis te lañ doon wax ñëpp gis nañ ko léegi ñëpp teg nañ seen bët ñëpp xam nañ ko léegi kon loolu nekkul secret loo xam ne lu nit ñi xamal seen bopp la mu nekk lu leer nañ kon wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla te itamit leneen li ci topp sax mooy li nga xam ne. Euh, moom lay wax ci euh, ni ñuy tuddee waxaabit yi ñun suñu wax jëmale wuñ ko ci waxaabit yi dañ koo jëmale ci képp koo xam ne danga nekk ci mbir di ko tuddee islaam te du islaam képp koo xam ne danga nekk ci mbir ñu koy tuddee islaam te du islaam waxaabit yi benn côté mooy ñoom ñi ngi wax waxaabit yi maa li ñu wax salafi yu na yi benn côté am nañ mérite boobu ñoom biñ déggee ñun ñuy wax ñoom ñëwuñ di wute indi ay violence moo xam ni saaga wala nangam wala nangam ñoom dañoo ñëw ne dañoo jàppoon ne ñii li wax xamuñ ci dara ñu ne nañ ñëw jàmmaarloo ñoom ci xam-xam biñ ñëwee ñun suñu xam-xam weesu téereb yàlla li nit ñi di jàng jàng nañ ko mais loolu bokkut ak suñu pas-pas ndax islam téereb yàlla koy jàngale lépp lu ñu wax ne ñëwul ci téereb yàlla ñu indi leen fi ko yàlla wax. tay ma ngi dégg sax mu ne Cheikh mbake moom mbir yi ni mu ko déggee rek noonu la koy waxee loolu tamit nekk ba tey beneen mbir moo xam ne du jéggi daya la ndax Cheikh mbake moom yàlla dogal na lépp lu mu wax day joxe référence bi nga la demal nga vérifier léegi nag yow fa ngay dem di vérifier ndax Cheikh mbake moo fay wax Cheikh mbake waxu fa ah kon nag Cheikh mbake moom li muy wax jëmul ci salafi yu ne jëm ci ñëpp la jëm di leen wax ne lii la yàlla wax yàlla da leen a ci lii te maa ngi dégg mu ne booyu wahaabit yi ñu ci bari dem nañ ci moom ma bàyyiloo la xel bàyyiloo xel ñiy déglu ne ñiy jugee ci seen tariixa yi di yeewu ci islam di topp diine yàlla moo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñooy jugee ci salafi yu ne di ñëw ci islam di topp diine yàlla loolu tamit lu mat a bàyyi xel la te lu mat a xam la waaw kon nag wax dëgg yàlla macha allah mbir moomu loolu lañ ci bëggoon a wax di wax na suñuy wax soriwul ndax du suñu yëfu bopp man awma organisation awma daayira awma tarixa bokkuma ci benn kuréel li may wax damay wax li yàlla wax di joxe référence yi nit ñi dem di ko vérifier seen bopp di ko gisal seen bopp di ci yeewul seen bopp di ko toppal seen bopp benn kilifa lañ am muy yàlla suñu borom benn référence lañ am muy téereb yàlla suñu borom te lépp luñ ci wax dañuy joxe référence yi ngir nit ñi dem vérifier seen bopp kon nag wax dëgg yàlla macha allah mbir yooyu noonu la demee ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum